mbokki internet Baol TV pël bu rafet mu ngi leen di ziar di leen jaajëfal ne woon naa leen le 20 le 20 incha allah ne woon naa leen du yomb ci ñaari mbër mu muy diggante Fils de Balla ak Général bu Malika euh, dama leen ne woon làmb bu kenn di woomul dañuy ne ba dimanche ci woon di félicité ki nga xamante ne mooy Fils de Balla di encouragé Général bu Malika Fils de Balla euh, jom taxut mu daan yàlla moo ànd ak moom Général it ñàkkul jom lépp Sénégal fair play ndam ni génn Sénégal tey Fils de Balla ndam bi mu gañe biir Sénégal lañ koy féetee général biir Sénégal la ko ñàkkee après ñoom dañuy ànd doon bokk ndey bokk baay làmb la woon mënta ñàkk faaw xas-xas loo am ñu jaay combat bi looloo loolu moo mënoon a indi enjeu combat bi looloo waroon tax nit ñëpp tey bàyyi seen te yëpp xaar tey bis bi mooy bis bi doon ñëpp doon xaar euh, ñetti at la woon ah 6 mois 2 semaines ba tey mu jeex daal ne woon naa leen jii lay lam ndam li nag yàlla dafa def ñibbisi fi nga xamante ne mooy géejawaay ah di euh, féliciter encore une fois ki nga xamante ne mooy fils de Balla Mbër maa lay féliciter. xar xar fay pël ginnaaw ma sant yàlla julli si di sant sama ñaari waajur di gërëm sama sëriñ sëriñ Moussa Nawel bu baax a baax di bëggee njabootu sëñ Moussa yëpp waaw di bëggee waa amoo 456 ak sama gars yi di bëggee ñëpp waaw. Fils de Balla ñu ñëw si wàccaay combat bi laa ak mhm. yéen. Mhm. nga ragal xamante ne mooy. Mhm. ñu ñu ñu wax loolu dañ maa xamul. lan la sa xew ñu doon wax loolu dañ maa xamul rek moo tax. ñu bëri dañoo am bu Fils de mais chaque jour Fils de Balla defoon ay preuve am. wàccaay bi nan na bi àdduna yëpp favorisé ki trop franchement ndax ngay bëre bër ñëpp ne Modou Lo dafa métti mais ñu beru ànd ànd ak sama gaay yi parce que sëñ Bamba ñooy fanaan ñooy yendu ñooy ñooy dem entraînement fajar parce que Serigne Touba Mbacke ñii aw ma seen fay sama gaay yi ñoo jël seen dërëm ak seen ñaar dërëm di ci fay seen sëriñ ku ci mel ne ñoom Fallou Fallou nii sonn na ci làmb ji trop fu xam dugg na fa sama gaay yi ñoom ñëpp billaay aw ma seen fay dañoo sonn sonn si làmb ji. damaa dama dama leen mujjee yërëm man. wóor na yàlla. Fils de Balla ñu ñëw sa sa diggante ak ki nga xamante mooy Général mhm. nga jógee ci tafaaleer mhm. moo tax àdduna ni laaj instant bi. dañ maa xamul léegi moo tax mais man bu ma xam-xam ne mën a bëre. tey maanaam da ngaa làqatu woon sa waaw man damaa làqu ndax équipe Balla Gaye mënu fa nekk ba ñu mm. mën a bëre nekk équipe Mor Fadam mënu fa nekk ba ñu bëre nekk équipe Walo mënu fa nekk bëre fii ti équipe benn la combat bi équipe Mor Fadam laa ko préparé mm. euh, fii mu mel ni da nga amoon benn xaw caay-caay da nga bëggoon wax loo waa Malika biñ njëkkee jàpp combat bi da nga ne doo bëri nga génn doo bëri coow li fa la commencé tàppeel la tàppeel dafa ragal général loolu passé nga damm ñi ne daa damm ñi ne damm tey ñu ñëw ci cappaandaw ni ñëw ci géewu làmb ji stade ba neex na yëngu na ambiance ngeen macha allah yéen ñaan ñëpp dama naan cinquante cinquante ci ambiance nday faatu Adama Diallo suñu yaay bi woy lu neex moom ngoon tëgg ko ci biir géew gi la ñu ñëw sa diggante exe yëngal ngeen stade bi daw mhm. ngeen euh, tase tribune bi di yuuxu tey bi loolu amee sa supporters yi di yuuxu lan la la def non tey supporters dañ maa ñaax bu baax a baax barki sëñ ma tey làmb ji du làmb xam a ñaax ndax gars yi dañ maa ëmb waa géejawaay sama mag yi ëmb ma mbëru géejawaay ñëpp ñëw ku su mel ay ñoom papa booy jinne ñëpp a ñëw gars yi ñëpp ñëw jàpp si ñoo ma doon jàppale contact yi barki sëñ géejawaay ñëpp benn lañ maa ngi sant mbëru géejawaay yëpp gis naa seen taxawaay ay ñoom Jackson Jackson tey dafa xëy suma teel woo ma barki Serigne Touba Mbacké maa ngi koy ñaanal yàlla combat bi ñoom la 14 yàlla may ko ndam am nga ci droit léegi dañu ñëw mu mel ni arbitre dafa sifflé nga cokkaas cokkaas pour bu ko mu ñëw. ndax damaa xam ne day ñëw. damaa xam ne day ñëw moo tax xam naa ne moom boo koy cokkaas muy ñëw. te loolu ko mu ñëw. ma jàpp ko daan ko a mën a. na benn mën a bëri. mais bi nga ko war am na doole franchement moom wax dëgg a ah, am na doole li mm. am ah, na doole. waaw ñàkk doole moom franchement. Mm. ñu koy ñaan yàlla rek mu nekkaat ci xoolaat bu baax. mais ñoom nee nañ jël amul dañuy def recours. dañuy def recours ñoom mi nekkoon ci géew bi ak moom bien vrai que ñoo na loo xam ne tey. yoon la dama ko yor mu si kaw dóor ko ci suuf mu bañ bu ma dóor ko caxabal a wër ndoom di fecc. gis nga samay fecc yi. tamit. erreur la damaa jàpp ne tey làmb ji sama bés la woon maa ko moom. tey yaa ko moom demal daan. barki sëñ Bamba sama lamb la moo tax ma daan def lu ma neex wër noo ma di ko fecc barki sëñ Touba Mbacke. ma arbitre damaa ngi am na benn moment boo njëkk action njëkk am nga yëkkat sa loxo ne xaw ma la. boobu est-ce que sa la yow. waaw mais xam nga arbitre sifflé moo tax ma jàpp. moo tax ma jàpp. moo bi. waaw. lan ngay lamb jeexee. ay frères lañ franchement sama nit la lamb moo ñu boole rek tey day jeex tey maa ngi ñaan suba incha allah bëgg naa dem sax seede ko suba. def fa émission ñu toog ma ne woon pour ne la lamb du boole. day du xajale day boole. waaw tey Malika fii Guédiawaye dafa jegante waaw. sama gars yi rek laay déglu ñoom laay déglu boo leen laajee rek loolu la. ñi ñi laay déglu rek. nee nañ bëgg waaw ñii rek ñii rek laay ndax man ndax man fi di bëri ci yenn combat. dégg nga dégg li ma ah, waaw maa ngi sant ñëpp ah, ku su mel mafia Bawol bi maa ngi leen bu baax ñoom Pël Jogo ñoom Ziggy. xaadim café tey gis naa nu mu toppee ci combat bi ñoom yoro gars yi waa mafia la bawol bi yaakaar ko ñu yaakaar bi barki sëñ Baba ñoom Demba Kande gis naa seen jàppal bi jàpp bu baax ñoom bi ku mel ni mams borom minus landing nelawatul kii moom tàttan la moom daa ragal chaque jour ma noo koy daane noo koy daane li ma digoon nag oto bi ma digoon nag ma indil nag ak ñoom papi sama mag bi maa mag bi nekk France maa koy bëggee bu baax Aliou Ndiaye fajar la xëy moom moom bi jàppale gis nga sa bopp waaw ak sama ñi ñoo si ak samay nit ñoom Aziz Ndiaye Yacine Masata Khalil Sora Badou ñoom ñëpp gis naa seen taxawaay bu baax. jéy seen jéy jàpp na si làmb ji jéy tey suba xëy na yónni fi ndaw mu may ma xaalis sama père Omar Wade. Basir Ka jàpp na ma na ma terrain jàpp na si may na ma terrain. waaw maa ngi ñaan yàlla incha allah su ma bëree pare dem jëli terrain bi waaw. jërë wax jëf ñu ngi leen di jaajëfal. waaw wax naa ko. dinañ jox dig si beneen daanaan